incha allahu rabi loolu mooy message bi c'est-à-dire message loolu la ñun dañ siy taxaw donc ñuy wax képp ku gëm ni Sénégal avenir Sénégal ci loxo peuple bi la nekk ci loxo jeunesse bi la nekk les patriotes na ñëpp jóg ñu manifester suba soxlawuñu assemblée nationale def assemblée nationale amuñu lu ñu fay def nañ leen bàyyi assemblée nationale ñun ñu fexe ba Dakar taxaw ñu fexe ba Sénégal taxaw fu waaye nekk na nga fa génn manifester wane sa mécontentement ak loi bii nii te manifestation waru yem ba keroog ñuy dellu ginnaaw donc loolu mooy man loolu mooy bi ñuy lancé ñun suba incha ñu ngi ci jërë ngeen jëf